dana ko delloowaale am du ko delloowaale foofu am na wuute waaye nag wuute ba mooy bu fekkee ne xamutoon ne lii mu jënd ak xubus la la maanaam luñ jëmale woon la ci wàllu yàlla te bu fekkee xamoon na ko moo ko tey moom mbaa ci njëlbeen xamu ko woon waaye gannaaw ba ba mu ko xamee taxul mu deltu ca gannaaw lam jotoon jëriñ yëpp dañ koy wax ne ko fay ko moom lay wax naa wattafaqoo dëppoo nañu ci mu joxe njëriñ la ma xilmihi ànd ak xamam xabla shira ci njëkk jënd ga fekkee laata mu jënd xamoon na ko moom moo ko tey kon lu jot a jëriñu faaw mu joxe ko ba waqtadi dana fayu asamana njëgg in kaana ndem nekkoon na talifa di sànku min faidil mabihi ci njariñal lañu jaay xataa yan tasifa ba ba muy matlu ndegam nee nañu lañ jëmale ci wàllu yàlla ku ko jënd yoon da koy xàcc bu fekkoon ne ko jaay te wër koo ne jaay ma ngaa njëgg mbaa mën na koo fay da koy daal delloo fa saasa moom du am ay wax waaye nag bu fekkee ne kooku daal loru ba jaay na ko sàkkal na pexe njëgg te mënta dellooti njëgg nu ñuy def mu ne kon dañuy jël jëmm joojee di ko luye la cay bàyyi ko ci njariñ ñu di ko fayee ki nga xam ne moo jëndoon te yoon xàcc njënd ma mu cay fayu ndànk-ndànk ba xam dana matalam ndéet wa in yëmut ndem dafa faatu min xablu ci njëkk muy matal njëggam fayoon laa cheyekon di dara loxoo di ko ñeel walay sa yaadoo ndax du jéggi xubusun xubusle maxal loxoo bérébam ba kañ jëmale woon loolee tam jaayoon ko te waru koon a jaay daa faatu bañ ne kon loolee kat war naa toxoo ci loxoom jàll ca kam war a jàll ca moom te fekk nag ka ko jëndoon bañ di ko tàmbalee fay ak njëgam matalut mu ne kon la tee njëgam mat da koy ñàkk rek ndax ndegam kañ féetali woon loolee génn àdduna dañ ko war a jàllale ci kësës ca moom wa xayru aslin lu dul cosaan xaadimu naf yi luy aji ñàkk njariñ sori fa soppeef na tamanuhoo njëgam nga fii mislihi ci am kemam summa wuqi fa topp waqaf leef ko la koo ko génne woon ci ak moomeelam yóbbu ci moomeelu yàlla bëgg ñu koy jariñoo su fekkee daa dema dem ba mëneestu koo jariñoo mu ne kon dañ koy jaay rek kon suñ ko jaayee te mën caa am lu mel ne moom mbaa boog ñu mën caa yokk leneen ba am lu mel ne moom dal koy defaat na ko koo ko defoon suñ seetee seet nag bañ ko jaayee njëgg mëneesu caa am lu mel noona te amuñu mel ni pexe kon say boo ñu saraxe ko rek ngir yàlla ba mu des nag suuf suuf moom dañuy wax ne lu yàgg-yàgg ak lu mu yàqu-yàqu ak lu mu ràpp-ràpp kenn du ko sañ a jaay arisaala nag waxoon na wuute bi am ci su barab boobee ràppee lool dañ mën koo weccee barab boo xam ne moom ràpput neex naa jariñoo ndax daañu ko sañ am duñ ko sañ foofu amoon na wuute ci misaal bu jëndoon ab rajo yóbbu ca jàkka ja ñu cay nodd mu dem nag ba rajo ba màggat màggat goo xam ne mënatut la mënoon su fekkee ne biñ ko jaayee mën ca am beneen rajo mbaa am na luñ ca mën a yokk ba amaat beneen rajo ñu def noona su fekkee mën ñu ko nag buñ ko jaayee njëgg ñu saraxe ko walaatu battu deful dog xismatun séddale fii xubusin ci xubusle wa taalibun aji sàkku xismata nafin séddoo njariñ lam yu si ñaawalut mooy lam def aw yoon la lu ñu leen boole ñaar mbaa ñett bokk ko ci wàllu waqaf gi nuy jàng duñ nangu ñu séddoo ko ku ne moom sa wàll ndax loolu mook jaay ñoo yemoo dikki buñ leen joxoon kër muy ngir yàlla du tax ñu sañ koo séddoo ku ne daal di moom la ngay moom ndax loolu moo jaay ko ñoo yemoo la ñuy mën kay mooy manes na ne diw féeteelu fee diw féeteelu fee ko defee kooka fa mu féete mu di ko jariñoo di ko toppatoo ndax li ci ëpp lu ñaar mbaa ñett bokk te ku ne day waaxu def lu ko neex li ci ëpp dañ koy sàggane ba mu yàqu kon daañu nangu sédda lépp na kee féetewoo fee di ko toppatoo ko jariñoo kee féetewoo fee tam bañu nekk nag séddale bu dog boo xam ne kee moom na lee kee moom na lee bu wér a wér loolu la ñuy bañ moo tax mu ne bu ca kenn ne nan seet nan koy jekkoo kenn ku ne am foo jekkoo di ko toppatoo ko defar ku wax loola ci ñoom ñu fekk si ko forcé ca ñu bëgg a bañ faslu li ab dog la fi sadaqati ci saraxe wal xibati ak maye wamaak la nga xam ne yataallaqu dana aju bihima ci ñoom ñaar day wax ci dog bii nag lu aju ci saraxe ak maye moo ko xubbusle bee nga weesu dañoo amuk duggante ba léeg-léeg nga dégg ñu tudd kee tuddaale kee tuddaale kee waaye da leen a beral nag ñoom ñaar muy saraxe ak maye seen dogub bopp saraxe ak maye nag am nañu wuute ndax saraxe mooy loo xam dañ koy joxe ngir yàlla di ci sàkku tuyaaba yi àllaaxira maye nag des na maye ngir jëmmi ka ngay jox a tax des na maye itam ngir bëgg ki nga koy jox am leneen lum la jox ba tey nuru nañu ay àtte waaye wuute nañ ci yaar mooy maye moom am na fu ñu koy sañ a nangoo te saraxe moom deesu ko sañ a nangu ñaareel bi mooy maye moom ka ko maye woon mën naa wëlbatiku jëndaat ko mbaa ñu mayaat ko ko mu fab te saraxe moom sib nañ mu wëlbatiku di ko jëndaat wala ñu koy may muy nangu lu mu xas sadaqatun saraxe tajoosu dana dagan illaa ma maradi mawtin ndari ànd ak tawati faatu watoon taradu def na ko galeen ba tey mooy def na ko aaye bi day na ci sababu bor ba al muxiiti bay aji wër am sa yëf loo sañ a saraxe saraxe ko la ne dagan na mënees na ne sax sopp nañ ko lu may nag kooka tawat tawati faatu su xasee tawat tawati faatu moom du sañ a saraxe du sañ a maye du sañ a joxe addiya mbaa bokk su ko defee dañuy téye loolee bañ koo sottal ba xam dana wéram du wér su fekkee ne wér na loola daal di wéy su fekkee ne wérut nag ñu boole ko ci xeeti ndénkaan yi nga xamee ne ku def alalam ñetti xaaj dem xaj ca benn ba ñu génne ko jàpp ne ab ndénkaan la defee ko nam ko waxe woon ndegam jëmul ci kuy doon ndax kuy doon moom du sañ wax ne boo fi jógee nañ ma ko joxal nàngam kon nag su tawatoon tawati faatu may soxnaam mbaa doomam may googee day yàqu lu muy nag daa génn àdduna te ñañ ko seqal ci dono ya nangu wéyal loola ba tey kon mu daal di wéy moom mi nga xamee ne nag noonu lay borom wére alalam nga xam ne su fayee jeexal mbaa du matal su saraxee mbaa mu maye te ñoom amee bor ya wéyal la mu def ba tey kon baax na ndax ñoom ñoo amee sañ-sañu wéyal ka ñoo amee sañ-sañu bañ ko wéyal ci kaw nag ameel gam leen ameel bor jiitu saraxe ga waaye bu fekkoon ne daa saraxee ba àggal gannaaw ba nag ñu door koo lebal waaw kon ñooñee duñ mën a dindi lam defoon ca saraxe ga mbaa maye ga ndax li ñu wax ni mooy bu fekkee ne amel gam leen amel bor moo jiitu maye ga mbaa saraxe ga moo tax sara bi naa haza isa taxaqaqat sabqiyatu dayni xala sadaqa ama isa taxaqaqat sabqiyatu sadaqa xala dayni saxat in xeysat qabla xusuli dayni aw juxilal xaalu hal taqaddamat ilxiyaasatu xalayhi aw taaxarat wa sawaun kaana almutasaddaqu xalayhi saxiran aw kabiran wa in juxila assaabiqu minhuma hal sadaqatu aw iddaynu fa in xaasaha alrashidu aw ajnabiyun lilmaxjoori aw xaasaha almaxjoor li nafsi xawsan taamman saxat
su fekkoon ne xamuñu saraxe ga ak dem ga di yenu ay bor lu ci jëkk ak lu ca mujj xamuñu lu ci njëkk xamuñu lu ca mujj waaye kañ jotoon na sarax moom xës na fab lañ ko sarax te it bu dee doomam it doom ju mag la joo xam ne mën naa wéeg mbiri boppam bu dee jaamur it fab na ko ba noppi dañuy bàyyi rek saraxe ga wéy duñu wax ne borom bor yi mën nañ koo tebbi àggale ci sax bu fekkoon ne kooka mënta wéeg boppam waaye loolu la ñu ko sarax jot na ko jël ba téye ko rek ñàkk gaa mën a wéeg boppam du tee ñu bàyyee ko ko kenn ko jël di ko def ca bor ya
wala rujuuxa deetug dellu baadu ci gannaaw ba lil musaddiqi ñeel aji saraxe ja ku sañ a saraxe ba wax ne saraxe naa ngir yàlla du ca sañ a deltu gannaaw niki mu ne daa koy fartee duma ko joxe faaw war na koy joxe ndax xës na wax ne saraxe ne ko ngir yàlla dana am nag fuñ koy forcé ci jox ko kam ko sarax ak foo xam ne desu ko ca forcé dana ko wax ca kanam wa milkuha ak moomam bi xëy di irsintul ak donn ut tuqiyee wattandikoof na ko doon nañ ko wax léegi lépp lu mu xës saraxe rek bu mu desiwaat ci moom lu may cig donn mu sarax kenn ñuy miraas kooka loola ñëwaat ci moom bokk ci wàllam loola moom des ko sib waaye nag lu mu xës saraxe bu wëlbatikoo jëndaat ko mbaa ñu mayaat ko ko mu nangu rek def na lu ñu sib kasaaka naka noonee mbaa lépp loo xam ne wuxi ba mayeef na ko lil ay taami ñeel jirim ya wal fuqaraay ak way ñàkk ña wa ulil arxaami ak waroom jege ñaale ya ba tey lu mu joxe tudde ko may waaye kam ko jëmale da di ab jirim mbaa muy ku ñàkk mbaa muy mbokkam loola daa xaw a nuru sarax moom it sib nañu mu ñëwaat ci ay loxoom lu may cig doon rekk lépp lu mu jox ab jirim daal mbaa ku loru ku néew doole mbaa mbokkam dañ ko xaw a jàppe ne sarax na fexe rek ba mu bañ a delsiwaat ci loxoom lu may rek ci donn wal abu baay xaw suhu làqam nga lima ñeel la nga xam ne tasaddaqa saraxi na bi ci moom xalaa max joori yi ci ka mu yërëm lañ yut taqaa defu ko watandiko baay bu saraxee doomam te muy doomam ja nga xamee ne moo yore ay mbiram ndax benn gone la mbaa mag la waaye mën a guta wéeg boppam lam ko sarax mën na ko koo téyeel waaye nag su ko téyelee ba gis ne magum jëmm la te léegi mën naa fabal boppam na ko ko dal di jox su fekkee ne àgg na ci war koo yoral boppam te joxu ko ko rek ba moom baay bi mu faatu mbaa beneen gàllankoor nit ki sisir lam ko saraxoon sarax ba yàqu na ndax moo ca sàggan watasihu dana wér moom sarax lil muayyaniina ñeel ñañ ràññeel bil xaw si ci làq ga wa jabruhu te ak forseem muttadihun aji leer la mahma abaahu saa yu ko bañee dañu ne woon bu nee sama alal ji saraxe naa ko rek war naa joxe loolee waru koo téye nga xam ne kañu ko sarax mbaa ñañu ko sarax buñ ko dee jël si du ko sañ a téye ne duma ko joxe waaye nag daa am fuñ koy forcé ne ko tey nga joxe ko am foo xam ne duñu ko ca forcé mu bëgg a wax nag fañ koy forcé ci faaw mu joxe ko loolu mooy kam ko sarax doon ko ràññiku mbaa ñu ràññiku di mbooloo iki bu ne nangam lii sarax naa ko góore njaay mii faaw rek mu war koo jox góor a njaay moomee bu naree bañ yoon forcé ko ci mu jox ko ko bu ne woon nangam lii sarax naa ko góor a njaay ak góor a jóobit waaye ràññeel na rek moom day war mu jox ko ñaar ñooñee su ko deful rek yoon forcé ko ci mu def ko te du ko sañ a bañ wayu umaru def na ko digal bil xawsi ca làq ga fii siwal muayyaniina ci ñu dul ñañu ràññeel wal xulf wóote ga nag ataa dikk na ci hal yujbaru ndax def na ko forcé am def ko forcé bu nee nag saa alal ji sarax naa ko dongay daara yi wala sarax naa ko jàngalekat yi alquraan yi mbaa sarax naa ko noddukat yi waaye taxul nag mu ràññeel loola day war na waaye nag bu ko faree téyeen duma ko joxe am na ñu ne des na ko forcé ci faw mu génne ko joxe am ñu ne déedéet deesu ko ca forcé wax ji gën a wër nag mooy deesu ko ca forcé ndax ràññeelut ñam wax ne ñoom la ko sarax dana rek way ñàkk ñi wala dongay daara yi wala noddukat yi demee noonu war na ko joxe daal waaye bu bañee itam yoon du ko forcé ne ko tey nga joxe ko wal jabru forcé ga maxtuumun lu ñu waral la bi sii temps yunin ci boroomu ràññiku li sin fihim ñeel seenu xeet min jihatil muayyani bàyyi ko ci wàllu ku ñu ràññeel su fekkee la muy saraxe da koo njëkk jëmali ci ku mu ràññeel teg ca ne bu koo ko jàllee nag sarax bi day jàll ci ñoo xam ne moom ràññeelu leen niki mu am këram gum bëgg a sarax jàngalekat yi alxuraan yi waaye nag daa wax ne daa koy njëkk a sarax góor a njaay mi nga xamee ne moom laa gën a naw ci ni muy jàngalee bu góor a njaay nu ngi wut a dem ci kër ga nag sarax naa ko kon jàngalekat yi alxuraan yee ca des kon njëkk naa tudd ku ràññiku muy góor a njaay door a tudd nag ñeneen ñoo xam ne ràññikuwuñu kon su góor a njaay moomee faatoo te jotuta ñëw ca kër ga du sañ wax ne kon ki ma ràññeeloon faatu na ñëwatu doon ci gannaawam ràññeelu ma leen woon kon day jëlaat sama kër tudd gam tudd ko ràññiku woon moo tax gannaaw ba ñoom tudd te ràññikoo ñi it waaw du tee yoon forcé ko ci jox ko ñooñee nga xam ne ràññikuwuñu muy jàngalekat yi daara ndax lam njëkk a tudd ku ràññiku mel ne kon daa aw ca moom ba jàll si ci ñoom walil abi ñeel na bàyyi ak taqdimu jiital lil kabir yi ñeel doom jay mag li xabdima ñeel ñëpp la nga xam ne yax tas su dana jagoo bi saxiir yi ca doom jay gone baay bu saraxee ñaari doomam kenn kay mag kenn ka di gone mbaa kenn kay mag mën a wéeg boppam kenn kay mag moo xam ne mënta wéeg boppam mu daal di wax nag doom jay mag te mën a wéeg boppam ne ko fabaaleel kee nga xam ne moom yéen a bokk bàyyi te muy gone mënta fabal boppam wala muy mag te mënta fabal boppam waaye loolu bu ko waxoon ab jaambur it ab jaambur man ko lam sarax doomam te doomam mënu koo fab mën naa wax ab jaambur mu fab ko téyal ko waxawsu xaadirin làquk aji teew maanaam jëluk aji teew li raa ibin ñel aji faddu ida kaana ndem nekk na ñoom ñaar sharikayni te aji bokkaale bihaa ca moom xadd un visa yooyu léef na ko suñu mayee ñaari jëmm yoo xam ne kenn ka dafa teew kenn ka teewut mbaa ñu sarax ñaari jëmm yoo xam ne kenn ka dafa teew kenn ka teewut kon jëmm ja nga xamee ne moo teew bu fabee rek dal nay fabaale ka nga xamee ne teewu fa dañ boole leen loolee kooke nga xam ne fekki wutoon maye ga su dikkee te nangu lañ ko fabaaleeloon loola baax na su fekkee nag dikk na te nanguwul may ga may ga day yàqu daal dellu ca boroom wamaa loo xam ne xoy yi na ràññeeleef na ko alal batti ci ak dog li sax si ñel jëmm fa xoo moom lëxul ñel na jëmm joojee waman taxaddaa ku jéggi jëmm joojee jàll ci keneen damina mu gàddu ko waxayruma lu dul la nga xam ne nag yu battu def na ko dog is yu xay yenu ba def na ko ràññeel rujoo xofoo delloom nga lil mil ki jëm ci ak moomeel lay sa yax sunu du rafet bu fab ci alalam nangam dogu ci sarax ko diw xam na ko ràññeel benn wax na ko ca làmmiñ wa ne lii moom diw laa koy sarax mbaa dogu na ko ci xolum dogu goo xam ne moom amu cëg nattable loolee diw moomee rek la ko war a jox waru ko jox keneen bu ko saraxee keneen rek day mel ne bor la bu mu amee loon kam njëkkoon wax ne moom la koy sarax mbaa kam dogu woon ci xolum ne moom la koy sarax ba tey bu ko joxoon keneen ne ko joxal ma ko diw mi ma ko war a jox ki mu ko jox nag dem tegg joxu ko kooku jox ko keneen ba tey moom moomee faaw war naa fay kañ ko ko joxloo woon ndax kookaa ko war a moom dëgg-dëgg bu fekkoon ne nag dogu na ci saraxe nangam ngir yàlla waaye taxul nag mu tudd turu kenn ne moom la koy sarax ci xolam itam dogul ci ne diw la koy sarax kon daañu sib mu wëlbatiku téye ko bañ koo jox kenn kenn kenn mu seet rek dogu ci kam koy jox ngir yàlla te bañ ko delloo ci alalam di ko moomaat téye gi daal moom sib nañ ko wal xabdu ngëb ga lil abi ñeel bàyyi li maa ñeel la nga xam ne xadd waxa ba may na ko wala daxoo doomam ja ak saxiri jay gone waja ba war na sharhan ci yoon ilal la si ndare la nga xam ne yahabu dana ko maye min naq day ci yaari keexam yaari keexam mooy wurus ak xaalis fa shartuhu sartam ba ak xuróoju mooy génn ga min ya day bàyyi ko ci yaari loxoom ila aminin jëm ci ku ñu wóolu baay lam may doomam joo xam ne gone la mënu koo fabal boppam wala doomam joo xam ne mag la waaye nag mën a guta wéeg boppam la bàyyi bu may doomam ji demee noonu mën na ko ko téyeel duñ ko wax ne ko faaw rek nga génne ko say loxo bu doonee daal lu ràññiku loo xam ne xam nañ ko mën koo ràññeel ni ki fas sàngam mbaa wata sàngam mbaal jenn alal ju ràññiku rek moom ju bokkute wuru sa xaalis mën na ko koo téyel da koy sàkkal ay seere ba noppi nag wax ne téyel naa ko ko bu dee nag wuru sa xaalis moom faaw de aajowoo mu génne ko ay loxoom jox keneen mu téyel ko ko mbaa boog lee mu wax bu nee sama doom ji may naa ko nangam ci xaalis mu wëlbati ko jëndal ko ca kër mbaa ab boutique mbaa leneen lu ràññiku nga xam ne léegi nekkatul xaalis moom lay wax naa ba yuux nii dana doyluloo istiraawun ak jënd xajal amin yi walis ku ñu wóolu ab fu jortu ko sax baax da xiinin ci gannaawub diir su fekkoon ne lam may doomam day xaalis mbaa muy wurus mu ne dama koy téyeel ñu ne su ko téyelee moom du baax waaye nag bañ ca tegeeb diir daawal batiku jëndal ko ca leneen loo xam mën na koo jariñoo daal sàkk ay seere itam ñu seere ko ñu ne kon loola doy na féetale gëm ko féetale xaalis boobee te dalul di walbatiku jëndal ko ca fa saas lam koy jëndal tegaat ab diir loolu du ci yàq dara la cay bon daal mooy mu may ko xaalis tudd ko ñuy dégg jëndewu ko jox keneen mu téyel ko fabu ko jëndal ko ca leneen ba moom baay bi am gàllankoor ni ki faatu dikk su boobaa moom may ga day yàqoo wa in yëkkun dem dafa nekk yahabu di may doomam mawdiha sukkanaahu barabu dëkkam ga fa inal ixlaa naka wéetal ga la wëññeel ko xukkumun àtte la waja ba bopp war na su fekkee ne jëmmi kër ga mu dëkkee moom la may doomam nañ ko waxe woon day génne bagaasam toxu daldi sàkk ay seere yu seere ne këram gi mu dëkke woon moom la may doomam ji te mi ngi nii génne na ay bagaasam dañoo waxoon ne nag faw dana xaar lu mat at lum néew néew mu door a sañ a dellusi ci kër googee bu dellusee rek te matul at te mooy kër gam dëkki woon du baax bu dellusi waati dëkk ca te matul at ba far faatu may ga yàqu na bu xasee génn nag moom mën na koy luyal doom ja te bu doon lekk la muy fayu ci luyaas ba itam du tax mu yàq may gam ko may kër ga ndax dañuy jàpp ne bor la bu mu koy ameel rek war ko ko jox wa tax mu naa wakaza laa yaxoosu al abu li mahjurihi daara sukkanaahu bal la budda min xurujihi minha wa ixlaiha min amtihatihi wa shawaaxilihi wa yukriha lil gayri fa xiina isin tasixu alxibatu walaw sarafa al abu alxalnata fi masaalihi nafsi nga seetlu lee mu waxoon ne loo may sa doom ju ndaw yow baay bi yaa ko ko war a téyel ndax dane sharhan wajabaa dañu bañ nga defe ne faaw rek moom rek moo ko ko war a téyel ba nga xamee ne su ko joxoon keneen mu téyel ko ko mu daldi yàqu déedéet day wane ne ndegam kooku gone la rek mu ne su ko ñàkk téyel la ko bàyyam may waaye nag bàyyi ba téyel ko ko ak keneen ku wóor téyel ko ko yépp baax na wa man koo xam ne yasixu dana wér xabduhu ngëbam nga wa ma xabada te ngëbut moo taaxu lañ ko jox mutlaxan ak lu man di doon li tafritin ngiruk sàggan xarada gog gaar na yabbutulu te yàqu xaquhoo àqam bilaa xilaafin ci lu benn wuute in faatahoo ndem raw na ko fii daalika ci loolee at talaafi dabaatal ga ku ñu jox te lañ la jox mën nga koo fabal sa bopp ndax yow mag nga mu mën a yore sa mbiri bopp boo sàgganee day fa boo loolee ñu la jox ba gàllankoor am jox kañ la ko joxoon yàqu na moomatoo ko bu fekkee kooka faatu na dañ koy daldi boole ca dono ba bu kooka amee bor ñu koy sisir ñu boole ko ci la ñuy faye bor ya ci gàttal rek muy alxobusu muy maye muy saraxe kañ koy jëmale ci moom ndegam moom mën naa nangu rek bu sàgganee nanguwut ba gàllankoor am rek jeex na du mën a ñëwati bëgg koo fab fab ga wees na de bu fekkoon ne doon na taxaw temm ci fab ga waaye muy faral di am gàllankoor rek moo xam gàllankoor ya ci dogalub yàlla la ni ki daa mënta àgg ca foofa wala kii ko war a jox ci boppam moo koy gàllankoor mel ni daa bëgg a rëccu deltu ci gannaaw waaye moom daal taxaw na temm ci fab loolee bu gàllankoor amee itam du ko yàqal dara mën na koo jël si tax mu naa wa mafhumu qawlihi li tafritin annahu ida lam yufarrit bi an jadda fi talabiha wa lam yatamakkan minha xata xasala maaniun min almawaanii almutaqaddima fa inna xaqahu laa yabtulu wa huwa kadalik fasun li ab dog la fil i'tisaari ci nangu nangu mooy maye ba noppi nangu la nga maye woon al i'tisaaru nangu ga jaasa dagan na fii maa ca la nga xam ne yéexabu dana ko may al abu baay aw laa daxoo ay doomam qasdal mahabbati ngir jublu ak cofeel baay lu may doomam te ngir yàlla taxut mooy du sarax rek da ko ko may rek ngir ñewante ko ndax moom mooy waajuram waaye du sarax kon mën naa wëlbatiku nangu ko moo xam doom ja mag la